بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وآله نمشي هم زيال الإمام البصيري من يوحك يهود نصران جي وينك من جكيتي نصران من نتعسائي من قوم إيسا أي نتعسائي عامل تنجبلان تنجينك xawma Moussa nitu Moussa yi billazi ci kem li nga xam ne amalat kum jëflante na koog yéen alxunafaa way jeng wari diine ju yàqu mm-hmm. yéen nitu Isaa yi na ngeen jëflanteeg nitu Moussa yi mooy la jurit ñi jëflanteeg yéen jurit ñi gëm nañ seen yonantu mm-hmm. gëm seen tere mu di Isaa ak Linjiil gëm seen yonent ñoom jullit ñi muy muhammad salallahu alayhi wa sallam ak alquran yéen nag ngeen gëm Insa ak Linjiil weddi yonent ak jullit ñi noonu rek moo dox seen digganteeg nitu Moussa yi de yéen gëm ngeen Moussa gëm Tawraat yéen nasaraan yi daal di gëm Insa ak Linjiil lépp nitu Moussa yi nag ñoom gëm nañ Tawraat ak Moussa weddi Linjiil ak Insa la dox seen digganteeg. yahud yi loolu rek moo dox diggante jullit ñeeg nasaraani rek laa wax de su ma xasee mu commencé yu xaatibu di wax ak alal kitaabe ni ñaari téere muy a tawraat tawraat wala injiil ak injiil xaala mu ne na bi nasaraani nasaraani la njëkkee nag xaala mu ne xawmu Isa e yéen nit Isa yi woom ñoom al mooy gaa ñi nga xam ne bi Isa ci Isa alayhi yàlla nekk si moom asalaatu xéwal wasalaam ak jàmm de xaala nee na amantum jëflante ngeen nag xawma Moussa niti Moussa yi billa ci ci kem li nga xam ne amalat kum jëflante na ko yéen alxuna faa way jëng ya waris diine ju yàqute mooy jurit ña maanaaw maanaaw loolu mooy annakum naka yéen machar nasara yéen nasaraan yi amantum gëm ngeen bi Moussa ci Moussa ala yàlla nekk sama wasalaatu xol wasalaam ak mucc te du seen yonantu mm-hmm. wa bi tawraat ngeen gëm tawraat du téere bu wàcc ci yéen mm-hmm. al munazala gañ wàccoon ci Moussa gëm ngeen ko mm-hmm. bi annal jamiana mboolem lépp xaqun dëgg la waaye wa kafaru ñoom wedd na ñoom ñoom yahudi bi kitaabikum seen téere te mooy Linjiil wa rasulukum ak seen yonantu woo insa te moo di insa hakaza nii xamaltu moom ngeen jëflante ak ñoom gëm seen yonantu ñoom ak seen téere mm-hmm. ñoom ñu weddi seen yonantu ak seen téere mm-hmm. kazaalika nag noonu amalat kum la jëflante ngeen aroon a faa way jëngee way dina ji yàq mm-hmm. bi haadal amri ci biir ñoom ummatu muhammadin mooy xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam amonoo gëm nañ bi kitaabikum seen téere wa ak seen yonantu wa kafaroo ñu weddi nag dégg nga wa kafartum ngeen weddi bi kitaab yim seen téere wa rasulim ak seen yonantu sawaan ay yemoon bi sawaayan ci yemoo xeetu yonantu gëm nañ Isa alayhi salaam ak Linjiil yéen ngeen weddi yonantu bi ak alquran kon kay na ngeen def ak nasaraan yi yéen nasaraan yi na ngeen def ak yahudi rek noonu la jullit ñi def ak yéen kama faaltum comme nu ngeen def maal yahudi ànd ak yahudi maa kufri ma ànd ak weddi gi ñu weddi bikum ci yéen kazaalika naka noonu amalatukum la jëflanteeg yéen aloona faa way jëng ya wala diine ji yàquta moo di jullit ñi bi mislim amaltum kem ni ngeen jëflanteeg bii ci moom al yahudi yahudi de waxa taqaddama jiitu na al iman leeral lañ gëm war ku feex lañ weddi xam nga ñu ma fa baax su ma xaala mu war a de laanu ko yàlla gërëm di gën a leeral ne sadaqu dëggal nañ ñoom jullit ña kutubakum seen téere te moo di liñ jiil wa kazabtum yéen weddi ngeen kutubahum seen i téere te moo di alquran hmm. inna zaa naka lii la bii sa bon na ci dellu ganaaw de hmm. lii moo di dellu gannaaw gu bon hmm. albawaaw daal mooy la nga delloo la nga jëlee ci mbir ma moo xam lu baax lu bon la waaye fii moom lu bon la ci na mu de ak dellu gannaaw maanaam maanaam mooy anal xunafa naka way jëng yooyu sadaqu dëggal lañ bi leen jiiri ci leen jiil waaye saa ngeen saa waaw munoo gëm bii maa ci ñoom ñaar wowum ñoom diinu nasaara muy diinu nasaraani xëy mm-hmm. saa liñ jiira lañ mm-hmm. juriñ ñi nag gëm nañ ko wakkasatum ngeen weddi ngeen mm. kutubum téere juriñ ñi mm-hmm. woom ñëwoon a faaw ñëre way jàng yi wakkatu wa kutubum seeni téere alquran moo di wa sayidina muhammad suñ sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy seen yonum tudde ngeen daal di ko weddi inna zaa naka lii mm-hmm. la sa bon naal boo waaw ci dellu gannaaw yaani dama ci namal waaye la si nga xam ne rajantum dellu ngeen ko mm-hmm. lu la mm-hmm. albawaa wooye moom alfaidatu mori njëriñ alati li nga xam ne yaxsulaa dana ko am a taalib aji sàkku li amri ñeel mbir mi imaam benn faidara muy njëriñ wala perte la nga ci la nga def daal muy njëriñ ak perte moo di bawaa yuqaal dañu woon raja del naan matlabi ci càkkutéefam bi kaza ci lii yaa ni lu mus na mu min faayidatin dellu na ci njëriñ aw xasaarate wala perte waaye ñi moom perte lañ ci yéere ndax dellu waaye bu bon lañ dellu dégg nga law jaxat naa suñu wedde woon ne saa alayhi salaam ak injil juxuudakum comme ni ngeen wedde yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alquran lastawee naa kon koy ñu xemoo awastiwaaw ndax xemoo wala boog awlil xaqi ndax ñeel na dëgg ndax ñeel dëgg istiwaaw nag yemoo bi dalaalin ci réer mukk rek laa wax de ñun suñu weddi xoon insa ak linjiil comme ni nga ne de yonent yàlla muhammad ak alquran kon ñu nag yéen ñëpp ñu xem bon waaye dëgg ak réer duñ ma de moo tax ñun dëggal nañu saa ci xam-xam yéen ngeen weddi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te wóor na leen ne dëgg la ñun dëggal nañu saa wóor nañu ne dëgg la ngeen weddi yonent bi te wóor na leen ne yonent bi dëgg la kon dëgg goo xam ne borom xam na ko du xem ak réer goo xam ne borom xam na ko rek féttalu nekk ci rek laa wax de xaala wax na yu xaatibu ma ngay waxanteeg an nasara nasaraan yi xaala mu ne law jaxat naa bu ñu wedde woon bi kitaabikum seen téere wa rasulikum ak seen yonantu fi adamil imaan si ñàkk gëm bi imaan si ñoom ñaar kama jaxattum comme nu ngeen ne weddee al imaan ak gëm yàlla bi kitaabi naa suñu téere wa rasul naa ak suñu yonantu wa antum di yéen taalam wala xam ngeen annahu maa ne ñaar yooyu aqu dëgg aqun dëgg la bi ma axbarakum ndax la ci sabab su ngeen xibaar al xale yàlla ne sama salaatu xéwal ak mucc insa wax na leen ne yonentu dëgg la injil xibaar na leen waaye ngeen wedd rek mhm. ah ngir fetteru ak ak kañaan xaal bu seyru ne la mu naa bu ñu wedd woon mhm. ka juxudikum comme seen wedd gi mhm. lastawee naa kon ñu xam naanu ñun wantum ak kon ñu nag yéenay xam de xaala mu ne awalil xaqi ndax ñeel na dëgg istiwaa yemoo bi dalaali ci réer mhm. maanaam maanaam ko mooy laa istawi du yemoo mu tawul xaqi ku topp dëgg mhm. alaa bayinatin ànd ak lay leer nañ ni mhm. maa dalaali maa dulaali ànd way réer ya anil xaqi walis dëgg alaa bayinatin ci kaw lay leer nañ de ki topp dëgg xam ci lay bokkut ki réer bàyyi dëgg te am na wóor na ko ne lim bàyyi moo di dëgg فينوم نكنيوم دلو رير نن هاي حق وليس دقالا بين دين عندك لاي ولير نن ويوان اللي مدرك فينوم نكنيوم يعلم وانا قمنا انه نن ينتي واقن دقلا كن فكان نكن دلالهم سنغرير انا دان قد دقر بوب واسدا نغا نيان ليس جالا درير دي نعم. عناد لا عناد مودي دقر بوب رأي اكا كنيان مولين تخر أه، مولين تخا ودي ينتي وايد آية ونياك خم ثم قال مواخ رجل الله عنه يعلمك يا نما لكم انا لن يهلل إخوة الكتاب ين بكم تيرما بكم تيرما مودي لان مودي نيوم يالا نفين سنت ني جيفي التوراة اك الانجيل موتاخ سو ني اندوك تيري بوبو داف لام بوغ رك تخي بودول لول نيالك موتاخ ني تودي لين بكم تيرما ري مودي توراة اك الانجيل لولن نيال ين بكم تيرما اناس غيري نين نيغا خامني lay sa nekkut yuraa ñuy sàmm dégg nga lay sa nekkut li xaq ñeel dëgg yuraa ñuy sàmm min ixaawut ak mbokkoo maanaam àndoo bu rafet min kum tukkee ci yéen mm. lu leen ñeel yen mbokki téere ba yéen ñoon tawraat ak linjiil du ngeen jox du ngeen sàmmante dëgg ak mbokkoo maanaam du ngeen ànd ak dëgg àndu rafet ba mukk rek laa wax de mm-hmm. du ngeen topp dëgg ba mukk seen bànneexu bakkan rek mhm. du mbokk seen mbokkoo ngeen mbokk ak mhm. du ngeen ko sàmm ba mukk lu tax du ngeen ko sàmm xaala mhm. wax na maalakum ana lu leen ñeel naa fii moom istifaam ak laaj la ilaa naa lu mooy ne moom waaye ajurat la mawlu di inkaari rat waaye weddi leen wa tawbiix bëgg eh, eh, dàq maanaam bëgg andi lil wabaali ñeel mbon alladi gi nga xam ne مرام مصيبة الذي يخم يحمل دنواتي بساي باتي مرام دفتي بكو تفال مون جي يخم موي ودي موي دال كو ودي لو باخ فينهم نكو نيوم لما كفروا بني ادي بالقران تي القران وبالنبي اك يونتي بي صلى الله عليه وسلم هم نيوم يالا مون خم ني انو ما ني نياري واخ دغ لا ليس نيكو انهم في نيوم في ذلك تي رو سكن سك ولا ريبوندو تاغنا ورنت خال لهم تي لا واخ نين مالكم انا لو نيال لين يعني لمشنم أي شيء بنبر حملكم ولنهن على هذا الجهود تبلا بدك وأنتم تين على بينة ينشلوا لار من حقه تبلو ينتبي صلى الله عليه وسلم وقول وقم من لكم أنا لن يعني إخوة الكتاب ينبوكم تيربا وإخوة الكتاب ينبوكم تيربا هم يوم المصاحب ونموني عندك law ñeel téere ba li kaw ni an na laa ngir ne yàlla hmm. subhaanahu tur na ma sellam wa taala kawe na xaata bu mu waxante naag ñoom fii ci ñoom fii ci téere boobu wa kallafu mu togg leen bil amali ci jëfee hmm. bin muqtadaaw ci la téere boobu di sàkku hmm. wees alum tana leen laaj am ci téere boobu yawmal qiyaama dëkk fa bi haazal haddi ci bile firi kaanu ci lañ nekk ixotoo di mbokkam téere ba yaa ni mës na mu asaabal kitaabi du ñooñ téere ba woo téere booba leen jiilu moo di leen jiile xaala mm-hmm. nee na maalakum andu leen ñeel ixwatal kitaab yi yéen ñooñ téere ba mm-hmm. wax xawlu waxam jum wax unaasan aw nit mm-hmm. woo moom tamisun dafay ràññale li ixwatal kitaab yi ba man suum dañ nasab ala tamise yi ci loolu ñuy jàng na xoo ko xam tamise dañ koy nasab ana lu leen ñeel yéen mbokkam téere ba du ngeen sàmmanteeg dëgg rek laa wax de ba jox ko xaqam maalakum andu leen ñeel laa yuraa duñ sàmm li làq ñeel i xaaw ak mbokkoo min kum ci yéen yaa na mu ci mbokkoo gi soxbatan du ngeen ànd ak dëgg ba mu taabaatan du ngeen ko topp foofu moom yu yu wobbi leen ñaawal bi haaza ci lii di leen doyadal su ma xaaral mu war a jëlaat ñu ko yàlla gërëm danaa ñaanee al ku njëkk ki al ku mujj ki wa ma zaala dañu kaza naka nii. almuhadisuna ñi sos ñi wal qudamaa ñu jiit ñi dundal bay laa mi jëriñ lii rek ngay gis ñu njëkk ci teraanga daal dañuy jàpp ne teraanga ñoom rek ñoo ko ñoo ko war a jago keneen ku nar yëg ci teraanga woowu rek jugee ci toroxtaane ñoo añaane la ndax daal ñoo la jiitu ci teraanga googu nee ñu jiitu ñuy ak ñu sos ñu ñoom ñëpp ci loolu rek nekk de yahud yi jiitu nañ ci yonent yàlla Moussa mm-hmm. nasaraan yi ñëw jot leen ci maqaam boobu topp yonent yàlla Isa ñu xañaane ren ne du dëgg mm-hmm. nasaraan yi jot ci Isa mm-hmm. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ñëw maqaam ba gën a foor ñu ne du dëgg ngi da nga ñaan de yonent bi ñëw na jurit ñëpp a ci yàlla andi wëlli yàlla wu foor bu mel ni Cheikh Tidiane ñu mel ni moom ñenn jeng ne du dëgg ndax bañ raw gañ leen raw demit nag noonu rek lay mbiri demee xaala neen al awala ku njëkk yaxsulu dana ñaanee al axira ku mujj ka li ànd al awala ndax ku njëkk la ma asala ba mu amee fii xaayati sharaf ci doyab teranga li taay ngir jox gi leen jox ndu wootu yonantu wal kitaab ak téere ga wa tasaahurum ak yombal gi yombal li zaalik ñeel loolu wa mutabaatum ak topp guñ topp loo ñeel ko xulwan mm-hmm. muy lu neex man jël tan di wàcc waaye ali tan bu kawe indi laay fa yàlla mu ne sharaf bi si teraanga watala dadu ñu bànneexu ci loolu bi an laa misla lahum ci ne amul ku mel ni ñoom fi sharaf bi ci teraanga ñu njëkk ña yàlla jox na leen yonent ak téere waaye ñu sàgg ko rek de mm-hmm. topp bànneex ba rek la leen yàlla jox nag daraja ju kawe fa yàlla waaye ñoom ñu koy bànneexoo bànneexu yëg ne xamuñ morom fala ma ontee bañ joxee man baalum ñu nekk seen gannaaw misle ma ontu eh, misle ma ontaw comme eh, eh, misle ma leen jox mel nu booti ci yonentu wal kitaab ak téere ba ay nit ci gannaaw ga jox leen lu tol ni leen jox ci yonentu ak téere li yax su ngir mu am lawum ñeen ñoo gannaaw ga asharafa teraanga allazi nga xam xasara am na li man xamlum ñeen ñe leen jiitoon xasa doowum ci leen añaane rek laa wax de ñoom ñoo wéetoon ci loolu may googu ñoo ko xamoon ba yàlla joxe ñeneen ci gannaaw ga rek ñu daal di xañaan ne lu tax ñi am ko li kaw ñu ngi nekk gi nekk maasulóom tolol toloo nañu ñoom firut bati ci daraja fa ani foo ñu bañ min zaalika ci loolu ba gars yi tolloog ñoom daraja daal ñu ne deel mukk lii du fi amee la andoon ndax ñoom talazazu bànneexu nañ awalan jël benn baana wujud bi dégg nga bi adami wujud yi dégg nga misli ci ñàkk am ak ku mel ni ñoom xamul woon ku mel ni ñoom loolu lañ doon bànneexoo gannaaw ga nag yàlla indi ku mel ni ñoom ñu daal di fii rek daal di kañaan waqat daa xoote na alkalaamu wax ji munaa fii ilaa tabyini xaqiqatil xasani ci ilaa tabyini xaqiqatil xasani ci leeral dëgg-dëgg añaan maa woo luy mm-hmm. wa maa sababu ak lu koy waral mm-hmm. mu ne baax na nag ñu leeral luy añaan mm-hmm. ak lan moo di waral añaan loolu baax nañu ñu leeral ko mm-hmm. anna xaqiqatan asadi na dëgg-dëgg añaan xoo mm-hmm. moom jasawu shaxsi mooy tiit ak jëmm ji alxasiri aji añaan ja mm-hmm. min muzahamati xayrihi ci buuxante keneen kudul moom fil wusuli ci yegg ila martabatin jëm ci ab daraja fi sharafi ci teraanga yoo xam ne xalla wàcc na biyaa ci martaba boobu alxas doo aji añaan ci xablu njëkk añaan mooy mooy nga xam dara lu yàlla may gis nit koo xam ne ni mu ngi am may gu mel ni ki nga xam rek nga nga bañ mu egg si foofu mm-hmm. ndax yow da nga bëgg a wéetoo may googu mm-hmm. di yàlla yàlla la loolu rek lay mm-hmm. ci am mm. boobu maanaam si comme yow mm. nga ne déedéet mukk du fi amee lii man rek maa ko war fakkulamaa raha saa yu gisee hmm. moom borom martaba ba hmm. sax jëmm xal la wàcc fiyaa ci martaba boobu maa ànd ak moom hmm. wa saa muy dox fil wusuuli ci yegg ilayha jëm si martaba boobu abu xadu mu bañ ko waa daaw mu noonu ko lii rek moo neeñaan nag gis na waa ji ma nekk nii fa la jëm su ma ko bàyyee dana fa yegg si ah xaaral ma noonu ndax li man rek maa koy xam Mm-hmm. keneen du ko amati loolu andi coolu yëpp mm. li an naf soo ndax bakkanam mm. kaanam nekkoon a xanaasala di am laa di ko ñeel atarasu banneexu mm-hmm. li ixtisaas yi ngir jagoo mm-hmm. bi tilkal martabati ci mboobu de daraja ndax bu njëkk moom rek moo jagoo woon daraja jooju di ko bànneexoo léegi bu demee nag ba mu am morom aa mu ne kooku bu mu yegg si ci maqaama boobu la muy jëf nag mooy lu mu mën a def ba sànq ka ma ñaanee ba dum yegg si rek dana ko def mhm. yàlla na yàlla musal ci kañaan mhm. wa nasara mu mujj xool na xëyroo kudul moom mhm. taata xiitati yi ci doon laqam ah moom rek moo yeggoon ci martaba ba léegi gis na la ma xamoon keneen am koy xam loolu andi ñaan gi de leen axtisaasu ndax jagoo gim jagoo fil martaba di ca martaba léegi shahada jëloo غيره كود المهم مختقرا ولا بوك لا نختصاص ونجد نخجعو جيم جعو في مرتبة كم مرتبة شهادة تلا جنو غيره كود المهم مختقرا مي كون قب تحت مرتبة تيجرون مرتبة ولا غيره كان لا يندو من قول إليه جم سمام بعين عظمة تجبر بطن مقل والجلال أك أك أك أك أك فورال ولا اختصاص جعو woowu moom xanaa am na loo ñeel ko attenzu te daange wala istikbaar ak rëy bi mhm. suudi seede gim seede mhm. li tanzimi xayrihi ak rëy rëylu euh, mooy istikbaar bi mhm. suudi si seede gim seede li tanzimi xayrihi ngir màggal ak keneen li martabati ñeel darajaam foo moom yuhibbu dafay bëgg a taxawuda wéet a tawaxuda wéet bi ixtisaas ci jago fii tilka martabati ci boobule martaba de wuyu aadi muy noonu man raaw képp gum gis xad xalla wàcc na maa wax nag moom fii tilka martabati ci boobule martaba aw maasalo wala mu tolloog moom bi martabati ci martaba mu maasalan ak tolloo fi azamati ci màgg wal jalaal ak rëy fa hada haddu wujuhil xasadi mooy firim wujuhil xasadi anami añaan mooy firim anami añaan nee na waa ji ba ab daraja dafa gis ne dara ji ma yegg ma yegg nii ku fa yeggu rek ku xeebu la mm-hmm. ku tuuti la mm-hmm. xeeb na ñuy xaat léegi keneen ku yeggut dara jooju nag bu koy xool dafay màggal waa ji dara jajam nekk mm-hmm. di ko réyal maanaam daal yéeg na foo xam ne nii ku ko xool mu ngi koy màggal moom ku mu xool rek gis na yaa ko fare suuf léegi nag bëggutul kenn xëccoog moom bànneex boobu mu doon dund si ñëpp di ko màggal ñëpp di ko yëkkati mhm. ñëpp faree ko suuf mhm. loolu daal bëggul see jug mhm. dafa bëgg fu mu dem rek ñëpp jug taxaw dégg nga balaa moo tusóori sax nañu ne yaramu ko daa léegi nag xam nga wanee ba nga ko bu tusóoree maanaam waxin la bu tusóoree yow tamit da ngay tusóoree dara ji jëm amoon ak bët ba nga ko doon xool yow doo doo ko xoolati parce que li mu am am nga ko léegi nag loolu muy ñàkk nag. Mhm. mooy waral añaan. Mhm. moo waral ñaareel ku yëg ci maqaama rek. Mhm. comme gis nga bëgg ci yëg rek dangay mu añaane ko. bu añaanee nag du def lu may jéem yàq ko rek ba du yegg ci maqaama boobu yàlla incha allah musal. lii mooy indi añaan. warut batu saaniyati darajaam ñaareel ba financé di ci añaan daraja bu njëkk mooy nga gis ku xeebu ku suufe woon ku doye woon mu ngi yéeg ci mart ci sa martaba bi nga xam ne martaba bu kawe la bu yëkkatiku la nga ne déedéet du yegsi ndax bu njëkk sa taalibe doon tey tey nekk sa morom hmm. bu njëkk ku xeebu ci sa ron kon tey mënul yéeg ci sa daraja loolu mooy ne ñaan ndax da bëgg ni nga ko noté woon démb saa su nekk mu koy noté noon da yàlla da yàlla noonu nga ne yàlla yàlla koy jox ku ko neex hmm. warul ba saa darajaam ñaareel ba firaasati ci añaan isa kaana bu nekkee asax su jëmm ji alxaasidu aji añaan ja fi martabatin ci daraja aaliyatin bu kawee xad maa saloo tool naag moom fi tilkal martabati ci boobu la daraja afraadu ay nit kaseeratu yu bëri fii maa fii ca nekk min uluwi ci kawe wala azamati ak mag wa jalaali ak màgg wala yastatiwu ta mënut dafa xëyri jañ keneen min musaamati tilkal martabati ci buuxanteeg boobu la martaba fay shaahidu dana janoog nafsu bakkanam xëy na isin jamono boobu mm-hmm. saakinatin dal li an moom aliatun waa waji kawe de alaalamiina waaye nag mi mu janog mi ndefi tanturu ñuy xool ila sharafiha fay shaahidu mafola mm-hmm. dal ndax kawe na mu ngi janog mi ndefi tanturu ñuy xool ila bi shuhudi ahlil maratibi ci ni ñuy እቺ ሴረኞች መርተባ እናድረ ያጂ ዋች አናችሞም አልሙህተቅረ ያጂ ቀቡ ለአደም ተሕሲሊ تلك المرتبة دينجن ياك أمبو مرتبة على دينجن ياك هو من فيها منشا كن فنفسه بكرم أيضا بتاي رادية أجي قرم له بشرف يا تتر دينجن تد مال أسراف عندك وي تدي في تلك المرتبة دي جبوب له درجة رادية أجي قرم له بعلو واتشكم مال عالين عندك وي كوي في تلك المرتبة دي جبوب له درجة am na koo xam ne hmm. kawe gi mu nekk wóor na ko ne mënu cee nekk moom kese hmm. wóor na ko ne ñeneen nañ ci te mënu leen cee génn hmm. waaye nag mbooleen ku yëggut ci kawe googu moom yaa ngi xool ñeeg foofu bëtëb kawe ak bëtëb màggal su boobaa moom du xañaane ay moromam yooyu nga xam ne xam na ne la ñu am mënu ci dara daf leen koy nangul waaye daal ndem moom bokk na ci ñuy kawe rek gërëm na la bokkul ci ñi xam ne dañ koy xool ci suuf bis bu demee nag ba moromam yooyu kenn nar ko cee raw nga xam ni la ñuy xoolee moromam kooku léegi moom dootuñ ko xoolee te mu xañaana si ñaari façon ñaan la kenn ki dafa xeeboon doonu toon dara démb mu ngi yéeg di la fekk si nga ne ah kii kat du yéeg fekk si ma xolo kii mu ngi bëgg mel ni man kon naa fexe bu mel ni man benn xañaan nañ kooku beneen xañaan bi nag mooy li nga am ñu bëri am nañ ko mënoo ci dara mu loolu mënatoo ci dara ñàkk pexe la waaye bokk nga ci borom daraja yi léegi borom daraja yi ku la faree kaw da nga yaakaar ne daf lay muur su defee nga ne ah kii kii kaw nii te sama morom la woon ñun ñëpp lañ doon xool ci même daraja tey ñu doon koo xool daraja yëpp duñ may xool naa ko fexe éliminer. Mhm. Mm, néew ci mucc ñaari añaan yi ñoo am. Mhm. Cheikh kenn du moom dégg nga. Mhm. mu ne fay sax na foo xamaat ci kaw darajaam. waala mu kawe sharafu teraangam alay ci kawam wa zaada mu yokku ak foorlam wa illaalu ak màggam ak màggam alay ci moom xasadoo mu añaane ko waa daaw mu boo gisee koo xam ne sa morom la woon yéen ñëpp dañ leen doon xool ci kaw tey mu naree laa fare kaw rek nga ne déedéet waa ji kat mel ni mu ñuy sut xaaral ñu éliminer ko gis da koy bañ te deful la dara da nga koy noonoo te deful la dara da nga yàq deram te pourtant deful la dara mhm. waaye daal gis nga ne mu ngi la nar sut daraja yi ñu koy xool léegi xoolatuñ la fa mhm. nga ne xaaral ma añaane ko yi moo indi añaan de waab xadu mu bañ ko mhm. li ajli ziyaadati martabati yi ngir yokk ak darajaam ali ci moom foo moom maa ali na mu ngi ànd way kawe yi maratibim seen daraja laa yax sudu mu añaanewul leen li ajli ma asala ngir lim am ali ci moom mi noon lu ci kawe la am am nañ ko walakin waaye nag yaxsul dañuy ñaanee man yasidu kën na ëpp ala rutbati ci dara jaam feexul wi ci kawe wala azamati ak màgg wal jalaal ak foor kooku laa ñaanee fa taxsulu mu am laka ñeel la min hada ci lii wala fa taxsala am na laka ñeel la min hada ci lii anal xasana naa ñaan xismaani ñaari xaaj la lii daal lañ ci déggee naa ñaan ñaari xaaj la xismun xaaj goo xam ne yakun dana nekk min olu martabatil maxsuudi ngir kaweeg añaaneeg kañ añaane ala rutbati ci kaw darajaab ka ko xañaane benn daf laa kawe daraja nga xañaane ko loolu mooy xaaj bu njëkk bi yow daal yaa ngi ci daraja yu gën a kawe waaye kël fare ka daal moom kooku si suuf rek nga bëgg mu nekk wal xismu saani xaaj ñaareel ba min tulooy asfal mooy fenk ak ku suufee almaquuru ku xeebu ila taxsili rutbat ila rutbatin jëm ci am daraja yoo xam ne tula tumasul dana tolloog rutbatoo darajaam fi azamati ci màgg wal jëlaale ak foor waroon yu ak kawe wala istikbaar ak mhm. ñaareelu xeetu xañaan gi mooy waa ji démb doon ku xeebu la woon tey mu ñëw nag nekk sa morom nga ne xaaral ma ñaan bu mu yegg ci man sama daraja mhm. fa mel ne ci anam gu njëkk gi mhm. yakunu lay nekkee xasad loolu añaan ak borom xam-xam yi li awliyaa yi ñeel wëlli yi mhm. wal muluk ak buur yi li baadim ñi baadal ñenn mhm. laanum ndax ñoom ñett lu boo dañuy sàkkalon laa kawe ala maratibim seen i daraja de mhm. borom xam-xam yi li tax ñu añaanee mooy borom xam yi xam nañ naa xam-xam kat daraja for la ñoom kese mënuñ koo am kenn kese mënu ko am su ko defee nag dana xam ne nañ ñu bëri danañ nekk borom xam-xam waaye daal buñ ne diw borom xam-xam la diw borom xam-xam la lañ jox diw ci garaar rek moom lañ ko jox mhm. loolu du ko naqari mhm. waaye nag boo dee wëlli yàlla xami karaama xami moojisaat loo ñaan mu nangu mhm. te moom xamu ko mu ne bidaa nga soskan nga fenkan nga da yàq ci diine ji ndax lan ndax xam na ne la nga xam nii moom mënu ko xam yaa ngi ko fa kawee daraja nit ñi moom la ñuy xool bu yàggee ñu bala fa su ko defee mu ne mu xañaan lii rek tax bidaa bidaa gi bëri de bidaa yi ngay dégg yëpp lii ko war waral dangay jàng ba bëgg a dee nga jàng nekk borom xam-xam bu mag bu dee tafsir kenn rawul la ci hadis kenn rawul la ci luxa kenn rawul la ci arab kenn rawul ci ngay jaamu yàlla am sutura benn waaye ñëw bu nekk nekkal mu nekk te mënoo wax nekkal mu nekk benn waaye ñëw mën a jël nit koo xam ne jàngutoon dara eggale ko ci boromam ba mu xam moom di mën a wax xam-xam boo xam ne yow mi jàng sama mënoo ko wax nga naa ah, kii kat xoo xam foo mu wutal ko pexe naa wax bidaakat la naa wax soskat la naa wax fenkat la ndax kat bu dul loolu mu kawe ma daraja ndax lii muy def nii man mënuma koo def loolu rek moo indi añaan gi nekk ci diggante borom xam-xam yi ak wëlli yàlla lii kese la maanaam añaan li ko waral gis di man loo xam ne ni yow mënoo ko yow ëllëg kawe nga woon bu démb ku kawe nga woon waaye tey waa ji mën na loo xam ne mënoo ko nga ne xaaral ma yàq deram ak bëri loolu la borom xam-xam yi añaane wala yàlla yi yi yëpp añaan rek leen jàpp <clears throat> waaye xam nga ne jàng yeewu nañ xam nañ ne li ñuy li ñuy weddi dëgg la nga xool Cheikh Tidiane àddina àddina yëpp foo dem rek mbooloo mu bëri topp ci gannaaw ñoom ñëpp di tudd yàlla jege yàlla am mën a li mën a yar nit ba mu mën a taxaw ca toolam ya jël benn cigg tàndarma rek ne ko aywa dawal dem ci Cheikh Tidiane te tàndarma ginnaaw ba si kanam Cheikh Tidiane mu wàcc te yow mënoo ko mu mën a yar nit ba mu yegg foofu te yow mënoo ko hmm? ah looy xam nga yéen a yemoon ci wàllu njàng rawul la ci loolu doo ko ci añaane waaye ba mu nag ba mën a yar ab taalibe ba mën a jël tëgg tànn ma tànn sànni ko mu mën a fekk sëriñam te taalibe bi sëriñ bi soree nañ ah, foo nga wutal ko loo ko tuumaal ndax nit daw ko bu loolu mu raw la nga ne nga ne kii li mu nekk bi daala dafay njabar dafay nangam lool nga mën a wax hmm? damaa nekk Sénégal di sëriñ hmm? bàyyi di sëriñ comme yow ah, ngay mu sëriñ muy doomu sëriñ ngay ngay joxe tarix muy joxe tarix ngay wér de muy wér nga am taalibi mu am taalibi xam nga doo ko ñaan ah waaye nga xool gis ko mu rafet loolu gën laa rafet ba pare mën a yar nit ñi bañ yegg ci yàlla di xam li Cheikh Tidiane bi te yow mënoo ko yar mënoo koo xam sa taalibe yi commencé laa bàyyi rocceeku ndànk-ndànk di dem ci mu ngi laa digg alxuraan man cee wax loo waxul bal sax taalibe bu ndaw boo xam ne yaa ko gënoon a jàng sax tey li muy wax ci alxuraan yow mënu ko wax man yar ko yam ni Seydi Ali yónni ko mu taxaw si buntu néeg bi indi yóbbanti bi jox ko ko bàyyi ko bëggee mu ko ni foo nga ñaan foo nga foo nga wax ni kii nangam la kii nangam la kii nangam la kii nangam la parce que yéen yéen fi nekkoon yemoo ba pare mu ñëw rek xëy xëy rek toog sa kaw bopp bi ay taalibeem sax raw la foo nga lii rek moo indi li rek ba léegi nak kilifa yu bari ñuy sànni xeer añaan rek ko war foo ku jégué yalla rek kañaan gi dafay bari ci kawam teew do gis ci mom mo yalla do gis ci mom mbon do gis ci mom suufe do gis ci mom réer do gis ci mom lenn lenn lenn lo mëna laal ko ba nit ne waaw kay li nga ko mëna jëmé amut mais añaan dang ko ñam rek dafa bëgg càng kii dafa bëgg da fay dafay nangam loolu nga ci wax mais dooni preuve foo fekk ki añaan di sànni xeet ka añaane añaanee daf du mën a wax dara ci moom lu leer waaye daf naa ne ah kii dafa bëgg sang rek ah kii dafa bëgg taalibi rek kii dafay woote kii dafay nangam kii dafay nangam kii dafay nangam parce dafa añaan rek yàlla insha allah musal te yow mi am xel nag dangay ngay xam ne ñi nekk yàlla añaan gi leen aji añaane añaane aji añaane ji lu mu foor foor bu mu la jaaxal parce que kenn ku nekk na nga toll ñu toll ni yow ñoo lay añaane de mm-hmm. kilifa ay kilifaa koy añaane de loolu mu la jaaxal yow toppal rek ndem gis nga ci moom dëgg ak njub yenn buur yi noonu la mm-hmm. nga nekk buur mm-hmm. moom mu am daraja joo xam ne yow amoo ko man loo xam ne amoo ko ay nit ñi nanguloo ko nu ñu la nanguloo da ngay xaaral ma añaane ko parce que moom yow buur lañ waaye loolu moo indi añaan yi ci àddina bi yëpp yàlla nañ si yàlla musal dégg kon foofu ñoom yaxsudurum dañ leen añaane waaye bu ko durum ñu bañ leen alaasa am di ci bile mbir maanaam yaa ma faree kaw daal xaaral ma añaanal am la waa joo ne fa in yaxsuduni fa inni xayru laaim qabli min annaasi ahlul fadli qad xushidu buñ ma añaanee man du ma leen yedd parce que ñi amoon ngën yëpp dañ leen añaane bu mel ne waji saali anamu ñaareel gi fi xasadi ci añaan xasadu ahli amwaali mooy borom alal yi commerçant yi boo mm-hmm. borom njiit yi mm-hmm. maanaam ñu fal ndom tànk dangay koo xam ne dañ koo fal euh, nu mu tudd sax nu mu tudd sax chef de quartier rek chef de quartier rek jërul ngay mm-hmm. waaye boo xam ne nit ñaa ngi koy commencé bëgg rek mu yaakaar ne kii bu moytu chef de quartier moom lañ koy fal mu commencé wu añaan da ngay gis commerçant bu mag am dem na ba am ay avion ci misaal mm-hmm. gis koo xam ne nii seretu mbaam sax mënu koo am mu commencé am seretu mbaam commerçant bi commencé fiir ne eh, kii boo moytul mbaam mi kat oto yàggee bu ñëwee yàggee mm-hmm. mu mu am mu am avion comme man xaaral ma gor ko mu suuf commerçant yu bëri noonu lañu def mm-hmm. duñ dimbale kenn maanaam nañ la bës rek bës rek ngay dugg ci suuf rek ñoom ñu faree kaw boobu bu amee soxla nag boo ñëwee ñu jox la dix mille vingt mille ah nga dem faji sa soxla na leen ah jërëjëf sëriñ bi nangam nangam waaye puus la ba nga mel ni ñoom. Mm-hmm. xalaatuñ ko. yéen lay bës rek noot rek yàlla incha allah musal. Mm-hmm. añaana koy waral kon borom alal yi ñaareel ñoom ni ñu añaanee mooy gis ku xeeboon di leen fekk ci seen daraja maanaam nara am alal comme ñoom. Mm-hmm. nara am daraja comme ñoom ñu ne ah lii kat du fi amee. kii dem mën na ñoom ma koy may dépasse mm-hmm. tey mu ñëw naa nekk sama morom ah du fi amee ñu commencé koo xeex mm-hmm. loolu moo waral nga gis ko am lu ne gàññ di soxore koo xam ni dafa commencé jug net ndax dafa yaakaar ni kii ëllëg dana mel ni moom mm-hmm. waaye borom xam-xam ñaare li muy añaane mooy ku ko gën a fare kaw koo kooku lay añaane moom yàlla may na ko daraja dégg nga yàlla yàlla musal ci ñaari marché ba yëpp <coughs> waalu riasati borom njiit yi tamit dañuy añaane fi man kaana ci ku nekk moo taqaran di ku xeebu taxtuum seen ron waxasala mu am fi muslim raati bi fi muslim raati ku suufi woon ñëw mujj yegg sa daraja am njiit gi nga am maqaama bi nga am nga commencé ko soxla phase yi lii wujjul xasali mooy aname añaane li ko waral nag moo ñàkk xam yàlla jaam boo effacé boom xam yàlla xam ne jaam yi dañ fee ñëw ku nekk war a feeñal dara ci li yàlla bëgg nga feeñal lu yàlla feeñal ci jaam mu neex la ndax yow loolu la tax a ñëw ah. lu yàlla feeñal ci yow neex la na la neex neex na wala naqadi na parce que loolu la fi tax a ñëw jaam yi dañoo war a feeñal mbiru yàlla kon jaamu yàlla bu ci mbiru yàlla feeñee yow loo ci añaane soo gisee noonu doo son waaye soo gisee ne yow yaa moom mbir yi te moomoo dara hmm. ah ku nar a xam nga ne déet bu mu fi waaye jaam yëpp buñ toogoon ci benn pàkk hmm. ku nekk ñaan yàlla soxlaam mu jox la li nga soxla du wàññi ci li nekk fa yàlla dara kon nit ñëpp am du tax nga ñàkk nit ñëpp kawe tax nga suufee te mun a fexe fexe ba ñëpp raw ñëpp wala nga tolloog ñu ñi déedéet foo am ñu la raw foo am ñoo raw noonu la yàlla bindee àdduna na nga nangu loolu loolu moo fi nekk waa xixatul xasadi dëgg-dëgg añaan hu moom mm-hmm. istinkaafu xaasid mooy bañ ak aji añaan ji min xusuulil maxsuul yi ci am ak lañ xañaane kañ añaane mm-hmm. fi musli rutbati ci kam darajaam lu woon ci kawe wa sikk baana ak rëy baana maa kaana gannaaw mu nekkee muxtaqaran di kuñ xeeb mm-hmm. mu haanan kuñ doye dëgg-dëgg añaan daal mooy koo xam ne ku suufe la woon nar a yëg si sa martaba nga ne déet aw min tuloo yi man kaana wala fenk koo xam nekk na misloo ko moom fi rutbati ci daraja foo xutbati ci kaw darajaam andu woon ci kawe mhm. ba sikk baar ak rëy koo xam ne yéene moon daraja tey mu ñëw fare kaw mhm. ne leen xaama jàpp tànk bi xëcc mu wàddu que mhm. mu may nar bu naree sud rek ngeen ay dee jàpp leen xëcc kat na wàcc dégg nga wa taasusan ak ci teraanga wafti xaaran ak ci pugarewu koo xam ne yeggoon na sa marché boobu ci teraanga ak pugarewu kañaane ko فهذه لي حقيقة الحسد موي دق دق أنيان إن أريد الإسلام واستطعت ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته